asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu eh, ñu ngi leen di nuyu yéen waa rajo 4 euh, Sénégal 4 TV eh, di rafetlu bu baax a baax seen liggéey ñëpp a ko rafetlu man daal dama amoon nag benn problème boo nga xam ni ah, euh, daal euh, sama doom moo ñëwoon Sénégal bi mu ñëwee nag Sénégal ay document am réer mi ngi tudd Lamine Aw la léegi nag euh, séjour am moo réer ak passeport am léegi dem na déposé ambassade mais ambassade bi fay na ambassade bi mais ambassade bi daal waxuñu ko dara dañ leen mën nañ toog xaar ko léegi ma leen doon ñaan ci ngir yàlla rek ak yonent bi ku ci gis kayit yi na nga ma dimbale rek ngir yàlla nga envoyé ma ko ci euh, rajo bi yàlla fay la. numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 maa ngi leen di ziare bu baax a baax dëgg yàlla seen euh, panel bi am na solo lool seen site internet bi am na solo ndax boobu ba léegi man moom laay topp. Euh, maa ngi dégg sama benn sëriñ bu nekk Jéméni kooku li mu wax laa ànda doomu aadama da nga koy seere rek liy seere rek te yàlla tax xamuñu Assane xamuñu Marème mais am na ñu may jox euh, euh, toor ba ndëgën ñoom laa koy jox muy para benn ci para euh, Assane nijaayam magam wax na wax ju rafet moom mi ko fekoon police am lu mu inquiry ci moom mais nijaayam wax na wax joo xamante ni bi dëppawut ak la wax dëppawut ak li gars yi nekk Maroc wax parce que dégg naa ci biir kii bi mu ne ñun ñoo ko yónnee fii trois cent mille pour mu dagg billet ñibbi si pour régler affaire boobu dafa war a delluwaat non non kilifa du waxee noonu responsabilité du waxee noonu Assane ka mu jaay téléphone moo wax ñu dégg ñam nekkal ñu wax ñu dégg kon Assane bu demee ba attane jaay téléphone am ñëw Sénégal yow mi nijaayam nekk senegal naan yónnee naa ko trois cent mille non bu xew-xew amee kenn sàkkut rey gi rey jullit du ko def rey sénégalais du ko def Assane juum na foofu kenn du ca ànd ak moom waaye nag yéen ñi di kilifam waran ngeen wax waneen wax bu gëna rafet bur wax bobu ak dagit kima deg nan maram marem dafa mel dafa am jëkër am far non non même fekk dafa amit doomu aadama yalla bu fekke joge na fi muy kristen ba muy julit ba seereer ci mom jëf-jëf yu bax yi nga xam ci mom way yu ko wax kon yow nijaayu asan yow lay dal fofu lu nga wax waroo ko wax resta bu tud waxe nonu magu asan lim wax Fek na ko fekk ko ci euh, ki ba ci prisonal ba asan def na erreur def na dali waye ñaari problème ko cost muy police senegal paaraay mareem lépp ñooma bu police senegal jógoon dox li war a dox jële ci Assane jële ci paaraay Assane jëlee ci paaraay Marème Diagne kon xew-xew du am kon toor bi yëpp Assane ko def di ndaw ci loxoom la jaare waaye dagit mën naa am ndimbal boo amoon ndimbal doog si fii bu ci police jàppan ay parents jóg taxaw dox ci responsabilité bi ni ku ci nekk ubbee gémmiñ di ci wax bu ci ku ci nekk waxaan awantu kon Assane du def lii mu def kon yow mi nijaay Assane yow wax dëgg yàlla en tant que suñu kilifa du suñu nijaay ñun ñëpp wax dëgg yàlla boo deet wax wax ju demee nii del seetaat li nga wax waaw parce que li nga wax ay nopp koy dégg te nit ñi ay borom xel lañu même ki naan Maroc mëneesu faa am nangam mëneesu faa nangam neen mënu faa am ma dem Maroc yàlla ma fa dem waaw mais nit man naa am lépp dool loolu xamal sa bopp mais bul xam ci keneen. allo salaamaaleykum xam naa ni man ma wax si affaire tele ak affaire internet ak ay affaire waaye nag dinaa wax parce que fii ñëpp la seen xol di metti ñëpp la seen xol tooy ndax jëf ji moo ñaaw ndax bu dul woon dara sax ànd dafay rafet tàqalikoo dafa war a rafet ndax tey jii moom bu fekkoon ni seet na yaayam di seet sëram kon lu ko lu mu mësa def ci ndaw si sax war naa bàyyi lépp si loxo yàlla te xam ni tey wërsëg yi yemuñu yàlla moo waxoon ni diw mii moo koy takk moom nag dañoo wax ci alxuraan ni jigéen kenn ku nekk day yëkkati loxoom ni bëgg naa waaye suñu boroom mooy wax ki denc kon nit bu gëmee yàlla dëgg war na xam ne alalu àdduna day jeex waaye nag la fait que moom mu reconnaissantoon xamoon na ni mënu koo def lu ñaaw ndax nekkul ku violente tey bu doon jigéen ju violente la ju agressif kon du nekk di maslaa ak moom ba léegi ci maslaa wuyum téléphone wala yaa ma def lii wala defoo ma lii mais boo demee ba mu dem ba ñaaw yow warkat weesuwul nga ñëw ni dangay balu àq balu àq kay ki tooñ mooy balu àq waa boo ñëwee jiital ay nit nga balu àq ba pare war ngaa dem ci jàmm bu dee doomu gor nga bu fekkee ni dangaa jugoon rek pour balu àq waaye loolu du balu àq loolu tooñ la tuddaat ndax seet digganteeg sa borom xam ni sa bàmmeel yaa fay weet looy def war nga ko bàyyi xel waaye dëppaat war weesuwul dëpp bàyyi ba fekk ay jigéeni kese nga ñëw xam ni jigéen amul doole nga fekk nit ci néegam fekk ko ci tuwaawam fekk ko ci vie privée am ndax néegu biir rek privé la nga ñëw fekk ko fa di ko jamat loolu yaa ko tey fii problème u xaalis kenn waxu ko ndax xaalis lu mu doon jënd tey nit mën koo jënd mais bakkan kenn du ko jënd en tout cas Marème ak fameem ñoom ñoo perte moom nag merde dara rek merde bu tekkiwul dara ndax ku tekkiwul dara foo ko fekk rek moom mooy def lu ñaaw jaam dëgg nag mooy def lu ñaaw reykatu nit nag moom jël ci kaso bi rek tëj ndax fii Europe fii ñu nekk nii dañoo xam loi loi la ñu jiital te dañoo respecté jigéen ak xale waaw fii kuy def def fi jàmm ndax fii jigéen ku ko laal jóg nañ sa kaw jigéen ak xale moom mooy primo moo tax nag lépp lu ma mën a wax ci gàttal mooy yàlla na ko yàlla toroxal te yàlla toroxalagu ko sax ndax lu tool ne jigéen ju ëmb ni mu néewee doole teg ci nga ëmb sa taaw ëmb taaw ni mu mettee ak jafte ni mu mettee nit ñëw fekk la di la jamat yaayam jooju tey image boobu du dañ ci moom jëkkëram ji ko ji ko jëloon tey muy loolu mu ñàkk loo famille ñàkk léppam te benn merde rek def leen ko moo tax yàlla ko yàlla ñaf ci biir kaso bi rek yàlla na dee ci kaso bi rek amul doful jinne jàpp ko ndax ki jam ba pare wiiri naan yóbbu leen ma police il est conscient ki jël avion am jubalul fu dul Sénégal jubalul ba fi problème bi am mu topp nit ki ba rey ko kooku li bëggoon def na ko kon nit ñi ils n'ont rien à dire nañu tëj seeni gémmiñ fii problème mu xaalis nag fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi mais problème bi moom dañoo war a wax ci góor ñi ndax rayaate bi moo ñaaw jigéen nag amul doole waa te Afrique moom tàmm nañ di néewal doole jigéen loolu rafetul waa lu mu metti metti rek nañ xam ne jigéen moo leen jur te bu dul woon jigéen tey ñoom duñu dànk sax lekk waa ndax fii bitim réew ñun dañuy togg góor di togg kon yéen ba tey Afrique Sénégal ci boppam xamu leen lan mooy njariñu jigéen ndax jigéen ñaa ngi ci waañ bi jigéen ñaa ngi fu ne di yëkkatee ka teg sonn bay bëgg a dee te bu ngeen jógee lu ñaaw lu nekk teg ko ci deru jigéen waa lu ñaaw lu nekk nag mais dafa ëpp te ñaaw moom kay lii sax day tax ba yow sax dootoo ñemeeti ñëw Afrique ndax danga naan man. lii ma dund ci sama réew rek laa xaj waaye réew moo xam boo fa demee tey yàlla tere la la fay xaar yow rek a ko xam soxor nañ da ngay ñëw di bég ci sa famille di kontaan di dox sa dëkk war a dox liberté war a dox sécurité am xam nga mais da ngay dox sa di féexlu ñi lay agressé di sàcc sa saak di sàcc sa alal di jël say téléphone mais c'est c'est franchement loolu Afrique man xaw ma kañ lay avancé parce que dañoo bon seen xol yi moo setul te gëmuñu yàlla dañuy gëm-gëm lu yàlla looloo ma metti koo ci waxal nag mun la gëm naa yàlla fekk na gëmul sax yàlla ndax ki gëm yàlla dëgg am na loo xam ne jomb na koo def wasalaam waaye daal lenn li ma la mën a wax si gàttal mooy waa ji moom yàlla na dund lu metti ci àddunaam te famille boobu tey bu ñu nattoon ci ku jigéen lañ te xam ne ay jigéen lañ waruñu woon sa yëkkati seen kàddu lu dul balu rek lañ waroon xanaa ñoom famille Marème gënuñu leen gore ndax ñooñu bi coow li amee ba léegi gisoo ci ku wane waxu kasaw-kasaw euh, ñoom ñëpp dañoo waxu waxu kilifa dëgg lañu wax diñ nag nangu dogal nag waa yow nit ki doo ko tooñ ba pare toñeer bi ko loolu moo am Afrique man nag wasalaam loolu laa amoon lu may wax ndax musuma wax ci tele nag waaye lii moom lu ma métti la il fallait ma wax ko அஸ்லாம் வலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்தும் என் சிலைகார் டிவி maa ngi rafetlu seen liggéey man nag sama yoon nekku ci sama yoon naa ci sama yoon nekku ci na Sénégal la comme ñëpp waaye nag lu mu mënti doon rek ñu xam ne yàlla ak ndaw si ak kooku ñoo ñoo ñoo ñoo mën a xam affaire bi waaye ku ciy wax rek dañuy wax sa xel ak sa xalaat moom moom moo la ci war a wax ne nekk carrément mu ndaw si génn àdduna waaye lu mu mënti doon man lu mu doon man rafetlu ma rey rey daal mooy dernier silence mooy dernier lu mu mënti doon rek rey moom la nit mënut a d'accord man lu mu bu la lekkoon ni milliard man d'accord ma ci rey d'accord ma ci rey même bu fekkee ni sax yow da ngay takk sa jabar indi ko sa kër dafa ko lu nekk te mu def la loo xam ne si ni nga bàyyi ko dem te la def ci moom moo foofu waxutuma la ak rey rey daal man laa mënta d'accord rey lu mënta xew ray laa mënta d'accord ray moom luy mënta doon mënuñu ko d'accord métti na trop nag. ci gone gu ndaw xale bu ndaw surtout ma jigéen faat bakkan moom bis buñ ko fi appliqué woon teg sa giiru dund waaye la rayee foo raye nit ñu rey la fa ci sens ñëpp di gis kon ba affaire yi dañ bu yàgg kon Sénégal sens na bu yàgg waaye day rey nit du mujj fenn comme xar ñu tër di rendi doomu aadama nga rey rey nit nit jàkkaarloo yoon nga xam ne kii ñoo rey yow ñu jël sa loxo noonu yow yaa rey léegi du mujj fen te viol bi viol bi ñu def mooy bi ñuy wax ne dinañ tëj sa giirug dund fi mu toll nii lii moo gën a danger rey moo gën a danger rey moo gën a doon ka fuuf rey daa mën daa d'accord lu mu mënte xew moom rey laa d'accord dama ci yoon am nga profil dama ci yoon ñu topp ci yoon yoon am na fi ñu joxal sa xaalis waaye nit looy mën a ànd ak moom nga mën koo defal tey bu yàlla doole mu am jëkkër seet yi keneen xam ne kii wóor leen a ànd bu ci def leen bul dóor bul saak te loo ci mën a def ci caabi féete la ginnaaw bu boobaa même boo ko réyoo sax tey ji boo ko dóoroon caabi féete la ginnaaw bu boobaa mu ko ni sëy nga nekk ci biir kasam kon am na lu tax jëru ko ko maa ngi jégalu nag bu baax a baax.